walking. bés bi tey ñu nu bésu joie la dañuy ne fête pour les morts kon ñun joie pour ñun ñun dañu ñëw siyaare leen ñoom tamit ñu siyaare ñu ñu ñaan leen fu ñu dem noonu na gën fii ñoom tamit ñu ñaan leen bës bu ñu ñëwee fii bu ñu demee ñoom tamit nañu teeru loolu rek lañu leen di ñaanal tey ñu ñaanal adduna bi yëpp foo taxaw ki adduna bi tey ñu jox seen ñaan ñu ngi jot seen ñaan fépp fu ñuy ñaan ñëpp ñu ngi jël seen ñaan tey waaw loolu rek la ñuy ñaan tey. D'abord, je voudrais vous remercier au fond de mon cœur euh, de m'avoir permis à parler un peu de cette journée. C'est une journée très importante pour nous catholiques. La fête des saints, comme vous l'entendez, c'est la fête des morts. Euh, chacun vient ici se recueillir auprès vraiment de ses parents qui, ont, qui sont partis. Et vraiment, c'est un jour, un grand jour de recueillement. Donc on est là en famille, tout autour de la tombe euh, de la grande sœur Françoise. Je suis là avec ses enfants. personnellement, au fond de mon cœur, euh, je ne peux retenir les mots compte tenu du, du Ibrahima ñu ngi lay nuyu ñëwoon tey jii ñu gis ne tey di jour Toussaint nekk jour nga xam ne ñëw pour màggal suñu waaw laaw dàkku yi nga xam ne sont des saints et les tey lan moo waraloon tey bi sa teewaay Cheikh Ibrahima. waaw man sama dara lu ñëw pour ziare si ñi nekk fii waaw parce que fii moom lu mu yàgg yàgg ñun ñëpp fii ñuy mujjee kon loolu rafet la tey ji bis bi ñu ñëw mobiliser wu ñëw ziare si. waaw parce que fii moom mooy mun naa ne mooy kër waaw dëgg la ñu ngi si àdduna bi bëgg-bëgg yaa ngi fii mais tamit lii jarul fàtte ndax ñu ñëpp fii la ñuy waaw loolu moo tax tey jii ñu mobilisé ñëw xool ziar ji parents yi ak ñu fi tëdd ñaanal leen sans l'essentiel quoi ñaan bi laal moo ëpp solo quoi waaw moo ëpp solo. da nga dundee tey jii bés bi nga gis ne nit yi chaque année dañuy gën di bëri mun parce que ñooy fekk que musulman aussi nga ñëw jàpp ci bés bi ñooy ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nan nga dundee bés bi. waaw loolu nu ma ko dundee mooy dañoo war a delluwaat suñu xel si yàlla rek waaw parce que soo xoolee saa yu fu ñëwee rek ñu jaay ngeen di bëri kon yow su fi ñëwee sax automatiquement yow war nga mën a xam di dina jor yow fii ngay mujjee parce que yow ñu fi tëdd nii yow gënoo leen waaw ñun ñu ñëpp ñu ngi woon si àdduna topp topp bëgg bëgg bëgg àdduna di dugg di génn tey jii ñu ngi fii à chaque fois ñu gën di bëri te chaque année yaa ngi ñëw di leen ziare kon yow dina dem ba benn moment yow li ñëw ziar si waaw ah, loolu mooy àdduna waaw ah, kon ñun du suñu bëgg-bëgg fii dara du dul ñaanal leen yàlla xaaral leen àjjana kawe loolu mooy sans l'essentiel bis bi quoi. Boniface Diamacoune. Euh, Boniface euh, gis ni tey jii yaa ngi ñëw tey jii ñu fekk la fi nga ñëw ziare mais aussi ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne dañu fa jógee. bon au fait euh, tey bés bu magal tey muy. bés bu ñuy ne Toussaint mooy fête ñi sell ñi suba mooy commémoration des morts bon puisque Sénégal euh, amuñu férié pour euh, ñi commémorer les morts donc euh, loolu moo tax ñu koy anticiper bés bi ci tey donc ñaan suñu mbokk yi nga xam ne dañoo génn àdduna parce que ñaan rek lañ ci mën. suñu borom lu mu def moom moo gën ci ñun loolu moo tax ñii ñëw di recueillir euh, ci tomb yi pour euh, fàttaleeku que am nañu suñu mbokk yi dem te ñun ñi fi nekk tamit dañu nar a toppatoor seen euh, bamel yi parce que ñun tamit suba keneen dina ko def peut-être waaw ñun ñoom am nañu wërsëg ñu am ñu leen di defar ah kenn xamul suba nu muy doon mais ñu ngi ñaan mu continuer mu law te lii mu jafee ci suñu dëkk bi quoi. ndax yaakaar in nakon taxala nu in we ngon na a itam nda fe yeesu krista o ɓee fo yaal wo fo nañu waato maado haa no